la taxoon ñuy wax boo yëree ci suñuy kàddu xam ne am na fuñ ko toftal ci projet bu nu gëm mhm. mooy tabaxaat réew mi tabax ko ci fondement yoo xam ne pour ñun la suñuy avoir ak suñuy savoir jóge ci ñun ñu téye sunu réew lépp lu yàlla defal ñu jëf ñu jëriñoo ko luñ ci bokk ñu bokk ak ñeneen ñun loolu la ñu a gëm loolu la mën a doxal te lépp lu ñu mës a def ci fukki at yi weesu waroowut ak loolu kon tey sénégalais yi jël pour la première fois de l'histoire ci Sénégal parti opposition ñëw gagné au premier tour ñoom ñoo la gën a am yaakaar ci projet bi li ma leen di ñaan rek mooy campagne bii ñu jëm. na doon campagne bu nga xam ne campagne la boo xam ne dañuy gën a mën a nafar projet bi. Hmm. ndax projet la woon léegi nag agenda la mooy maanaam ab naal la woon léegi ab doxalin la. xam nga ab hmm. naal moo nekkoon projet bi agenda moom doxalin la léegi nag doxalin bi kenn ku ci nekk da ngaa war a xam. fa la yàlla féetale la la yàlla mën loo te xam loolu ko kenn gënu laa xam lan mooy sa wàll nga doxal ko loolu nag li koy waral mooy nga xam ne campagne bii le président de Pastef di mëne nga xam ne su koy mënee pôle bu nekk dana fa taxaw wax expliquer lan la ñu naal lan la ñu mbëbët ak liggéey bi nu bëgg a bokk ñu may ñu nopp may ñu ab dégloo gëstu ci seet ñoom luy seen contribution ñu ànd soppi réew mi parce que loolu moo ñu tax a jóg loolu rek laa leen di wax ndax xam naa ne projet bi moom ñoom xam nañu ko agenda bi mooy li fi bees te dañ ko dafa war a nekk seen mbir nekk seen yëf parce que ñoom ñoo koy doxal comme ni koy faral di waxee président la république ak vingt cinq ministres du ñoom ñooy defarum réew mhm. dix huit millions de sénégalais ñooy defar réew te agenda bi mooy tëraleen bi bu ñu ko tegee fii li lan lañu ñu war a tëral ak doxalee ko ci vingt cinq ans yii di ñëw kenn ku ci nekk da ci am waar mhm. jàmbaar nag ca waar ba jërëjëf may fàttali rek ne Moussa Balla Fofana la ñu àndal ci waxtaan wi mesdames messieurs bu ngeen ñëwee rek di ñu seetaan ñu ngi ci daanaka euh, ñaareel wala sax njeexitalu émission bi waaye ñu ci ànd ak moom ci waxtaan wu yaatu donc euh, waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi ñu ngi woon ci campagne bi laale itam référentiel bi donc daf ñuy may ñu toftal itam dem ci li nga xamante ne ni la ñu ko dénk di wàllu urbanisme euh, ak collectivité territoriale yi ci gàttal euh, monsieur le ministre mhm. ba nga teewee ci boppu ministère boobaa euh, ba tey mhm. avant ngay ñëw sax am na coow loo xam te ni mu ngi fiy jug ñu bëgg a xam kañ lay jeex mooy lu soxal liggéeykat yi nekk ci wàllu territoire collectivité territoriale yi mhm. monsieur le ministre juróom benn weer wala juróom ñaari weer ak léegi dara yëngatuwul lan mooy problème bi kañ la fas yéenee jeex. Mm-hmm. ndax yëg ngeen itam wala yow yëg nga ni itam am na ñoo xamante ne nii ñu ngi loru ci grève bi. Mm-hmm. ah ñiy loru kay yaakaar naa ne sama njaboot ci la bokk ndax réew mi yëpp la. Mm-hmm. te loo xam ne nii yàlla dogal na ne ñaari at ñu ngi grève ñaari at. ñaari atu yàlla. ñaari atu yàlla ñu ngi nekkoon ci grève te nag ba ma ñëwee li ma njëkk def mooy syndicaliste yooyu laa njëkk a dalal. bi nga ñëwee. ku dem sama page Facebook samay première urgence ñoom laa dal. waaw bañ toogee ma ne leen yéen de yàlla dogal na ne su may allié ngeen ndax yàlla dogal na ne man employé wu ma leen état emploie yéen ay employé maire ngeen maire yee leen jël te mag yéen bu nu àndee liggéey dinañ gën a mën a ñoŋal fonction publique bii nga xam ne man ba ma nekkee conseiller technique en 2012 bokk naa ci ñi nga xam ne dañ ko doon jëmmal ndax fonction publique locale 2011 la commencé. Mhm. dañ ko voté 2011 ñu ñëw jël pouvoir donc ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi ko doon jëmmal. d'accord. li andi jafe-jafe bi moo nekkoon le fait que ñi fi nekkoon daawuñ leen daawuñ séq ak ñoom waxtaan woo xam ne waxtaan wu concret la dañoo nekkoon ci ay wax yoo xam ne ñoom ñu koy wax xam nañu duñ ko def mhm. bañ yegsee nag fekk na boobu ñoom ñu dig leen benn décret ak benn arrêté bu benn décret bu président ak premier ministre war a signé mhm. kenn signé wu ko woon ci loo xam ne ñoom seen wàll bopp xamoon nañ ne lii kenn mënu ko signé ndax loo xam ne boo ko signé mooy maanaam di nga jël 61 milliards war ko génne ci jamono yooyu toll ñoom ñoo gënoon xam ne loolu mënta ne. d'accord bañ ñëwee nag ba ma leen woowee ci waxtaan je les ñoom dañ ñoom am nañ ci luñ téye luñ téye loolu ñoom ñoom loolu la ñuy xeex. waaye ak du ay ak yi sax maanaam waxtaan wu nu amoon ak ñi fi jóge ñi fi jóge te waxtaan woowu bu ñu si ñun ñu dogal ko. Hmm. ma ne leen nag man de bañu maa ñu waxtaan ci dogal bi mais nañ ñëw waxtaan ci teg ay commission liggéey ndax man man ministre collectivité locale la te collectivité la ko wax wax ne municipalité bu nekk da am sa autonomie de gestion man duma ma employé agent yooyu maire yi ñooy employé. Hmm. loolu il faut que mu leer. il faut que mu leer donc ñun état responsabilité andi jàmm. ak doxal décentralisation mooy suñu responsabilité mais ñun employé wuñ leen gis naa maire maire wu benn maire toog ci Bamba Fall naan waaw salaire u quatre-vingt mille ah moo ko signé en ko de xam nga kuy kuy xool Sénégal yi ko signé cinquante mille soixante mille quatre-vingt mille ba noppi toog di ko di di ko di ko di ko jooy mais lu tax nga waroon def hmm. ñun bañ ñëwee dañ leen ne dama leen ne yéen may allié ngeen ñëw leen ñu teg ay commission ndax man du man maa leen recruter waaye man dama am responsabilité saxal jàmm ak ñoŋal fonction publique léegi ma ne leen ministère fonction publique mi nga xam ne moom mooy càmbar lépp lu ñuy def ci lépp luy fonction publique kooku foog ñu toog waxtaan ak moom. en principe. ministre bu bees la mi ngi door a ñëw. ministère des finances ministre bu bees la foog ñu toog ak moom ne ko ñun li nu bëgg lii lay jar. Mhm. mu xool lu ci yenu maanaam buñ paree ñu dem gis premier ministre. bu ñu paree sax bala loolu ma waxtaan ak maire yi ne ku mën na fay ku mënul mën nañoo seet nuñ lay jàppale waaye nañu waxtaan ci lii bu ñu waxtaanee ba tënk lu nga xam ne noonu na maanaa man ma yóbbu leen ci premier ministre premier ministre daal di càmbar ne ah kon boog mën nañoo avancer waaye man mënumaa dem ci premier ministre di ko tegal dossier bu nga xam ne laggee liggéey ba ca war defuñ ko te lii du man dong maa ko war a def ndax comme ni ma la ko waxee dafa am samay naataangoo yoo xam ne dañ ci am cër yu mot sëkk mm-hmm. loolu nag xëy na xawoon na jafe pour ñu pour ñu dégg ko man nag ñoom bi ñu continuer grève yi man boobu ma jublu ci liggéey bi def gëstu bi moo tax ma jékki-jékki ne leen boo moytu yéen sax xamu leen woon ne xëy na dossiers yi maire yi recruté recruté nañ lu tolloog seize mille personnes xam nga syndicalisme moom mën nga nekk fenn di défendre mhm. droit ngay défendre mhm. ak loo jàpp ne dafa jaadu mhm. mais yoroo comptabilité employé yëpp xam nga man dama centre service centre de formation des élus centre boobu fonction publique locale moom mooy comptabiliser dossiers yëpp man xam naa ne dossiers yi seize mille emplois seize mille personnes les mairies recruter. en tout c'est seize mille. seize mille ba noppi boo xaymaa at mu ne rek li ñuy demander c'est vingt et un milliards. vingt et un milliards vingt et un milliards. boo ko rappelé deux cent cent soixante et un donc loolu bi ma ko génnee communiqué ko xëy na nag bon andi woon na ay jafe-jafe mais ñoom xam nañ ne ah kon mbir mi laaj na waxtaan te li may rafetlu mooy. ñoom ci loolu dañoo dem def gëstu. Hmm. dañoo dem defi ay gëstu. def ay gëstu ñëw andil ñu ay proposition ñun fekk na ñun comme pare woon nañ ñu waxtaan ba ñu waxtaanee nag vraiment kontaan naa trop ci seen état d'esprit parce que boo gisee sax semaine bee passé ñaari fanu grève lañ décrété te maa ngi leen doon wax ne leen même bu ngeen di grève grève droit la mais nit mënoo xëy leen di décréter cinq jours. Hmm. loolu kenn du ko grévé dafa am service minimum. fonction pure local bañ ko bañ ko tafee dañoo ubbi un mois ne un mois boobu képp ku jàpp ne fonctionnaire nga déposé ña déposé woon ci période boobu ñoo ñooñu motuñu 1100 man 1100 yooyu newoon naa ne ñii pare naa pour jàppale ko pour ñu fay leen ak jàppale ko leen war a fay mais ña ci des faw ñu càmbar. faw ñu càmbar parce que fonction publique ku ciy dugg concours ngay duggee wala ñu ñu ñu recruter la par titre. même ki ñuy wooyee agent non fonctionnaire waxuñu agent non fonctionnaire parce que ko par titre ou par concours. dañ ko recruter mais sociologue la par exemple te sociologue bokkul ci onze cadres de fonction publique yi wala ñu recruter ko bokk na ci onze yi mais il avait plus de trente non fonctionnaire donc liggéey bu am ama solo la fonction publique laaj locale laaj parce que kenn liggéey bi sottiwul. monsieur le ministre su ma la déggee kon dafa mel ni grève bi jeexagul ne ndax ñoom fi ñu jàpp lañ jàpp au contraire moo tax six mois yi da nga ma laaj six mois la lañ def six mois yooyu ci loolu la ñu nekkoon d'accord ci waxtaan kenn ku nekk wax li ne ci moom parce que li may apprécier mooy ñoom wax na li nekk ci ñoom. Mm-hmm. man it wax naa leen li nga xam ne moo ne ci dossier bi. effectivement loolu andi na ñoom ñu xam ne ah. te c'est gëm naa ne ñu ñu ñu ñu ay sénégalais lañ. yu mm-hmm. bëgg réew mi. bañ ñëwee la dernière fois il y a deux semaines dañu ñëw andi ay propositions. Mm-hmm. bañ càmbaree ñu ne ah lii kat vraiment lu am solo la. waxtaan nañ ci kilifa yi ñu ngi ciy avancé man gëm naa ne. ci loolu nag la ñu ñoom décrété semaine bee passé ñaari fan. Mhm. liggéey nañ ñetti fan. Mhm. te gëm naa ne bu bu suma naataango yi tontoo ba ñu tënk ba kilifa gi wax ndax ñun campagne teewul ñu ngi liggéey. yéen a ngi liggéey waaw ñun campagne moom terewul ñu ngi. liggéey noonu la ko président sàkkoo ci yéen. noonu la ko sàkkoo moo tax ma ne la génnuk président bi lu war la. d'accord waaw lu war la ndax kilifa ci kër da nga war a génn wax ne liñ jëm nii laa ko bëggee. na ànd ak dal na ngeen liggéey ku war a campagne na campagne na ngeen liggéey liggéey bu mu tardé donc ñun gëm nañ ne bis d'ici une une semaine ou de au grand maximum nañ toogaat te am naa yaakaar lool bu ñu yàlla defee sutura mhm. euh, te gëm naa ne ñoom tam ñu ñu ñu ñu ñu xëy na dañ leen a ñàkkoona xam nga nit ànd boo gis la koy tas ne nañ nu yoone nu yoone ci njëlbeen dañ ko fayutoon mhm. donc kilifa yi fi ne woon te ñu xamee leen ci nëpp nëppal mhm. ak wax loo xam ne gëmoo ko coow li dañ ko nëpp nëppal dañ ko nëpp nëppal waxuñ leen li ci ne moo tax man bi ma génnee wax ñu bëri ne waaw ministre bi ma ne leen mais li ma wax moo am de mooy dëgg gi rek laa wax li fi nekk rek laa leen wax mhm. dombal dossiers yi temps la fonction publique 2011 lañ ko créé bañ créé ubbi nañ un mois ñi déposé 1100 la woon ña ca des ñëpp recruté nañ leen muy 16000 te fonction publique xamu leen d'accord léegi nañu waxtaan. <laughs> loolu leer waxtaanee rek daañu juboo euh, mais mais monsieur le ministre fu ngeen toll ci wàllu digitalisé li nga xamante ne mooy suñu ay extrait suñu yenn ay papier mhm. euh, donte ne grève bi am na fan ngeen ci toll. loolu nag vraiment bokk na ci li nga xam ne euh, am nañ ci jéego yu ama ama am solo xam nga Sénégal 18 million de sénégalais lañ waaye këyit yu juddu yeeg décès yeeg mariage yi boo ko xaymaa 30 million la. 30 millions 30 millions de pièces. xam nga du lu ndaw. loolu bëri na de jamono ñu toll nag. waxuma la numériser mais numériser nañ ba intégrer vingt millions mu des benn dix millions bu ñu war a def. Hmm. te teewul dinañ commencer logiciel bi nga xamante ne nii mooy mën a permettre nit mu nekk Dakar soxlaam pièce Kaolack dugg ci plateforme bi euh, ñu envoyé ko mbiram. comme man fi ma toog nii ma jël sama téléphone loolu tey pour te semaine dernière rek ñu ngi def ay test man mii essayé naa ko ba marché. Hmm. Mhm. man mii essayé naa ko man naa ko. ne nii bëgg nañ lancer benn phase pilote test. testé benn zone. Mhm. ci yàggul dara. ci waxtu yi ñu jëm daal. voilà nañ ci def test euh, après présenté ko premier ministre. parce que am na benn conseil interministériel sur l' état civil bi ñu war a def après ñu avancé waxtaan nañ ci finance ak yi ñu war a kii yëpp ñu ngi ciy góorgóorlu yàlla yàlla defar ci yàlla defar sutura mais monsieur le ministre si ponk boobu am na foo xamante ne nit souvent dañ ci jot ay réclamations. Mhm. mooy ñi nga xam dañuy dem ci fen ci mairie. Mhm. ñu ne leen seen numéro bi ngeen xamee moom ngeen di wutee ay daan nekkatul yéen wala ñu jàpp ne entre guillemets selon ni ñu ko waxee mooy dañ koo jaay eh, lu mu ci mën di nekk daal mooy këyit bi nga xamante ne nii la ñuy demee pour am kayitu juddu mhm. dañoo dem ñu ne leen nekku leen fa problème yooyu tamit ndax eh, bi ngeen ñëwee ci seen ministère eh, yéen a ngi ciy bàyyi xel bu baax non seulement ñu ngi ci bàyyi xel waaye li ñu nekk nii mooy solution bi hmm. bokk na ci directive yi ñu jël mooy nañ sanction yi léegi dañ koo gën a taral cest di dire que enquête ak contrôle bi ñu ciy def moom dafa gën a tar mhm. mais système bi ñu andi système la boo xam ne kenn mënatul frauder mhm. parce que ki nga xamante ne nii moom day def saisie bi day def saisie bi yónnee ko agent d'état civil double vérification système boo nga xamante ne ni la nit ma agence bi mën na toog fii xam ne am na demande yu ñu def xam na ka ko def xam na ka ko war a valider xam na ban heure lañ ko signé. mën na nekk mën na nekk lépp da koy xam. da ngay gis day agence bi day toog fii woo benn maire ne ko sa agent numéro temps am na cinq demandes yi nga xam ne mi ngi ci système am traité wu ko na ko traité. waaw hmm. ah, loolu de dina am solo. loolu dina am solo xam nga tant que mbir yi këyit la woon ay registre yàqu yow registre bi yàqu yow xam nga numéro registre yi te xam nga ne registre bi dong la woon su la neexee nga jaay keneen mais su fekkente ne léegi registre bi moom mënatu la yàqu. Hmm. xam nga registre bi mënut a yàqu moom. waaw ah. te système bi. pour nga dugg ci faw nga dugal sa tur ak sa numéro. Mhm. boo ci duggee xam nañ ban heure nga ci dugg. xam nañ ban dossier nga laal xam nañ lan nga <laughs> nga fa def. lan nga fa def loolu mënutoo sàcc. Mhm. mënutoo def dara. mais ñu ndax tardé wuñ ñu toog ba vingt euh, deux mille vingt ñuy wax yi. tam Macky Sall mooy tardé. Benno Bokk Yaakaar mooy tardé. <laughs> dafa tardé sax parce que campagne bi commencé na gisuma ko man maa ngi ko doon xaar. waaw moom moom moom moom gisaguñ ko de waxoon na day ñëw de. <laughs> xamoon naa ne nga moom ñëw <laughs> ah. ah nee day ñëw de fii ak jeudi. fii ak la jeudi. ah ñu koy xaar. te day baat campagne bi. day baatar la <laughs> campagne. <laughs> si son cœur ne bat pas trop vite. alors alors monsieur le